ate ñu ngi ak la finaliste raw gaddu a ah. mbër ziar na la waaw fay naa la delloo naa la ziar naka waar double moteur la waaw double moteur dëkk fan palmarin palmarin ba Kaolack ba Kaolack sori na de Gandiaye waaw gis nga sori na trop dëgg la waaw waaw sori na moom lan ngay wax ki ngay finalul xam nga ko waa Seyfa xam naa ko nee na xam na la de sa tur la jaar sa tur la jaar xam na de waaw wax na xam na ma bu baax doo koy wax waaw di koy encourager rek waaw waaw lan ngay wax waa Palmarin ak ñi seetaan sa supporter. waaw waa Palmarin moom aw ma seen fay leen di sant ñoom ñëpp képp kuy bëgg double moteur rek maa lay sant di la gërëm quoi. bilaay wallaay. ndax mus nga ñëw fii. non non maa ngi fi doog a ñëw nag. fii mooy sa première sortie. fii mooy sama première fois ak Gandiaye quoi. nga ñëw def final poids raw nga. waa gis nga loolu la yàlla lan ngay yëg. waa yëg naa lu bari lu rëy laa yëg billahi ɓuran nan gonum fane singanŋulum wasa kuy wa den ñaan tamit surtout wa palmarin ɓiy den o ndaan den o ndeɓ den oya sak kuy wa den ñaan quoi denge danin ndam na combat den fa sefa quoi bilay walay